Idrissa Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di fay di kontaan ci ci ni ngeen ma kii waa réew mi yéenay waa réew mi kay yéenay waa <laughs> tey euh, ñu dalal la en tant que président Saïwi doon encore acteur culturel ngeen nekk ci secteur bi tey mu mel ni dafa amaat beneen état d'urgence mu nërmeel lépp li nga xam ne espoir la woon ci lubbite euh, salle de spectacle yi tey nan nga jàngatee euh, bi lépp situation. ni ma ko jàngatee daal soxna si mooy dañu nekk ci benn. état d'urgence boo xam ni bu bu ko président Macky Sall jëlee xam na li muy def ak ak gouvernement parce que pendant deuxième vague bi dafa am benn relâchement maanaam benn bàyyeeku bu am ci ñenn yi yenn Sénégal yi et loolu il faut ñu ñu am jàngat boobu parce que première vague bi li tax Sénégal yéegoon ci kaw ñëpp di ko jël comme exemple c'est parce que nit ñi dañu amoon benn centralité benn conscience collective maanaam benn euh, xalaatu mbooloo ñëpp daan ànd nga gis di takk seen masque di raxasu ak gel yi di toppatoo seen i seen i waa kër seen i am di jàmm boo toppatoo sa bopp mais da ngay toppatoo da ngay toppatoo euh, sa waa kër te da ngay toppatoo sa réew loolu mooy dëgg bi mais deuxième vague bi dafa ñëw nekk ci benn situation bu doy waar ah, ñiy faatu di gën faatu pandémie bi di di yokku ka euh, cas communautaire yi di gën a yokku donc dafa am benn relâchement boo xam ne maa ngi woo vraiment euh, sénégalais yi pour ñu bàyyi ci xel c'est très important loolu. Mm-hmm. bu ñu euh, relâché wu deuxième vague bi et puis ñu xam ne feebar bi feebar bu am la. Mm-hmm. du affaire caaxaan xam nga. Mm-hmm. du affaire du affaire u caaxaan du affaire du caaxaan daal. d'accord waaw am na dëgg dëgg dëgg dëgg feebar bi nañ ci bàyyi xel xam ne rey na suñu ay mbokk rey na suñu ay nit rey na suñu ay ñu bari. Mhm. léegi loolu daa di ñaan daal ñu ñu ñu bàyyi ci xel. voilà c'est très très important daal pour man voilà. tey yaa ngi soulever aspect patriotisme mais am na benn réalité bu fi nekk muy wàllum koom-koom ci seen liggéey euh, tey nga xam ne dafa nekk à terme mën nañoo wax ne ñaari at a ngi yënguwu leen ci nan ngeen fas yéene def ba euh, taxaw. mais nan la ñu def pour pour taxaw li ni ñu fas mooy euh, li may woo mooy une conscience collective c'est-à-dire gouvernement. Mm-hmm. président Macky Sall moom xam na li ñu def bu woote def ne ne nañu def benn benn état d'urgence mm-hmm. ñu boole kook euh, maanaam nu mu tuuti euh, naka lañ koy waxee ci sax euh, loolu ñuy boole kii nu mu tuuti couvre feu mm-hmm. mais moom xam na li ñu def première vague xam nga li ma wax sànq ma bamtuwaat ko. Mhm. première vague bi dañu adduna bi yëpp dafa félicité woon Sénégal mais deuxième vague bi nii nii. Mhm. Sénégal yi dañu ko tuuti. donc may woo Sénégalais yi pour ñu gën a am cette conscience collective cette discipline la gën a farlu ci raxas loxo yi ci masque yi ci distanciation yeeg yooyu loolu mooy mooy et bu état. Hmm. ne bu kenn sitting bu kenn marche da ngay respecté état xam na li tax mu ne la bu kenn sitting xam na li tax mu ne la bu kenn marche. Hmm. waaye ngay xëccoog état ne damay marche par force alors marche boobu ñu def sitting boobu ñu def am na benn benn artiste boo xam ni foofu feebar na fa te xam nga feebar day wàll ñu bari. Hmm. feebar na fa ba ñu tëj ba ñu dugal ko hôpital nii. mi ngi nii ah, ah, ci ci ci ci ci entre mi ngi nii di afa sabar bu metti mhm. moo ko dal ci coronavirus bi alors dañuy woo ñan nga xam ne dañ doon sitik ñëpp ñu woowaat leen ña nga xam ne waajooju jege na leen ñu woowaat leen donc état dañ koy respecté dañuy respecté loi respecté yoon man loolu laa gëm benn journaliste CNN bi ma demee Amérique daf ma daf ma woo ne ma mhm. boo woon musicien lan ngay doon ma ne ko man bu ma dul woon musicien militaire laay doon mu ne ma lu tax militaire ma ne ko parce que man dama gëm respe dama gëm éducation dama gëm discipline mhm. nit da ngay nit da am njiit njiit bu la waxee nga dégg ko ba pare doo ci yam rek ci dégg ko da koy déglu aussi santaane yooyu loolu daal laa am maanaam misaal bu may wax Sénégal yëpp xam naa ni seen rajo bi euh, Sénégal yi yëpp dañ koy déglu. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. loolu laa amoon lu may wax. président président fédération stade mooy man. mu am euh, li nga xam ne mooy benn fonds deux milliards cinq cent euh, gouvernement teg ko fi ngir jàppale artistes yi gisoon nañ ne tegoon na fi trois milliards bu njëkk tey deux milliards cinq cent lan nga xalaat ci koppar googu nga xam ne gouvernement yëkkati na ko ngir jàppale leen ci yéen ñi artistes yi. waaw loolu man dama bokk ci commission bi ko bi président Macky Sall joxe trois milliards yooyu man ci commission man maa doon mag mag ci commission wu séddale xaalis boobu mhm. xam nga ma bala may tontu ci question boobu nag ma gërëm vraiment président Macky Sall ci geste bu mu def envers la culture mhm. envers toutes les cultures du Sénégal xam nga mhm. acteur culturel yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi koy remercier de par ma voix di ko wax merci jëf monsieur le président Macky Sall loolu dafa baax aussi ku def lu baax ñu koy waxal. Mhm. parce que président Macky Sall Senghor jaar na ñu ngi fi woon man xaritu benn bakkenu doomi Senghor Francis Senghor sama xarit la benn bakken ñoo doon ànd guddi ak bëccëg. Mhm. man mii. Abdou Diouf ñëw fii ñu gis li mu def Senghor la mu def ak Abdou Diouf li mu def. Mm-hmm. président Ablaye Wade ñëw suma maam jooju ma koy nuyu d'ailleurs li mu def aussi ak infrastructure yu mu fi teg yëpp mais président Macky Sall moom c'est le seul président moom rek moo jël xaalis ay milliards yi milliards jagleel ko acteurs culturels yi muy ñun ak sama naataango yëpp quoi xam nga. Mm-hmm. loolu aussi dafa rafet ñu koy fàttali. nit ñi di leen ko wax parce que euh, waa pour bañ a ñaawal daal wax ji donc man dama bokkoon donc ma euh, revenir sur ça. Mm-hmm. dama bokkoon ci commission bi nga xam ne ñoo doon euh, distribuer ñoo doon maanaam xool nan la ñuy séddalee trois milliards yooyu mooy premier trois milliards yi. Mm-hmm. lan moo ci amoon. Mm-hmm. ñun dañu ni baaraam yii baaraam yii. ni mu sutante noonu la artistes yi sutante doo gis ku mel ni wax dëgg yàlla ku mel ni Youssou Ndour nga koy jaawaat léeg beneen artiste boo xam ni mu ngi soog door mënul nekk. mais loolu tamit euh, est-ce que du discrimination. non non non non amul discrimination kooku c'est une lucidité loolu mooy loolu moo am man damay jot suma xarit yi comme ñoom Alpha Blondy damay jot ñoom Salif Keita damay jot suma gars yi Amérique damay jot ñëpp. Hmm. parce que sumay xarit lañu dañu am fu ma jaar ak ñoom. Hmm. xam nga. Hmm. mais ñooñu ñëpp dañu am benn con dañu am benn conscience collective am na artistes yoo xam ni ku mel ni Baba Maal mënut a bokk ak yenn artistes yi fii ku mel ni Youssou Ndour mënut a bokk ak yenn artistes yi fii c'est pas possible ci ci ci waykat yi quoi. un euh, gars comme comme Thione Seck mënut a bokk ak. yenn artistes yi Thione Seck mënutul bokk sax Wally Seck mi tey bi mi nga xam ne doomam la mënul bokk te Wally xam na lool te pourtant ñoom ñëpp ñoo jàpp ñoo bokk benn source bi man ak man man ak Thione uh-huh. fan yi ñooy nekk tous les jours chaque soir maa ngi kër Thione Seck man. Ah, ah, ah, xam nga mais mais Wally Seck bi nga xam ne moom béykat bu populaire bi tey fii ci Sénégal mënut a bokk ak papaam Thione Seck donc foog ñu wax dëgg bi. di xool dëgg et puis di xool xale yi di leen wax dëgg du affaire naan dañuy rabase kii wala mais dafa am ñu bari ñoo xam dañu dugg ci aar bi te duñu vrai artiste parce que am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla xamuñu sax nan la ñuy bindee musique de A B ak C mënuñu ko xamuñu ko. ci wàllum séddale bi prox prox googu rek dugg ci di wax ci culture di wax ci tic. te uh-huh. xamuñu ci dara donc léegi. Uh-huh. man suma tontu man Idrissa Diop mooy mhm, mhm. dañu war a delloo si culture ak ñi ko war ak ñi ci war a mhm. man du dama gis mu ci sëmbax yu bari yooyu dama fa gis jamais parce que suma vécu permettre ma sax may maanaam may may may am yenn daje yi di fa ñu ma fay gis ak yooyu man doo ma gis ci dara mais ci fulla ak fayda moom da ma fa gis moom d'accord waaw fulla daal ak fayda bu bu boo seetee Idrissa yëpp di nga ko fa gis ak waa Saywi yëpp parce que Saywi lu tax ñu ñu def benn fédération bu toll ni Saywi mhm. muy quatorze régions yëpp la ñu la ñu la ñu la ñu wër fi mu nekk mhm. ñu jël présidence bi jox ma ko man fal ma ko c'est pas parce que dama signifier dara parce que ñooñu dañu xam fulla ak fayda bi may dox bi ma am ak dayo bi ma am ci àdduna bi yëpp ñëpp respecté ma nag jox ma cër ma jox cër ñëpp uh-huh. moo tax xale yi fi Sénégal ko wax mu ne la allo père père Idrissa Diop. d' accord ñoom ñëpp dañu ma jox euh, ñu wax ci séddale gi ci ñu wax ci séddale gi tey jii am na ñu ne dañoo war a taxawal benn euh, benn commission su ko defee séddale bi jaar yoon loo xalaat ci wax jooju. mais man ci commission boobu daa bokk. mais nañu waxante dëgg yàlla rek tax man yàlla rek moo tax mais ba ñu waxee ñun ñuy wax égalité ñuy wax beneen kii beeg yooyu ñun ñu wax. égalitaire mënut am parce que égalitaire mooy espèce u yooyu quoi waa sodar ñëw wax a wax wax a def égalitaire bañ ko defee égalitaire boobu lan moo ci xew fay nañ de dañ ñu woon ay neuf mille membres lañ fay nañ mënuñu fay neuf mille membres yooyu fay nañu ba nga xam ni cinq cent et quelques millions moo des président Macky Sall lan la def daf ne la du maa leen joxoon suma xaalis delloo si leen ma nag léegi suma xaalis. loolu yëpp xam na ci donc ñun ñoom bu ñu defoon li ñu li ñu li ñu suñu vision tableau bi ñu amoon ñun ñuy tableau boo xam ni tableau bi kenn du mer ci kaw la ci digg bi ak ci suuf. loolu mooy adduna loolu la adduna di doxee di. mais bañ ko bañee loolu président Macky Sall jëlaat xaalis bi joxaat ñu deux milliards cinq cent millions nii te man deux milliards cinq cent millions yooyu naa leen man duma ci wax te suma suma kuréel bi nga xam ne maa ko jiite mhm. duñ ci wax dañuy bàyyi ministre de la culture ñi nga xam ne Ablaye Diop mhm. ministre buy liggéey wala wax dëgg yàlla ku mën a liggéey la ku am Pastef ci li muy def ku am ku am maanaam euh, doxalin bu rafet ci li muy def mhm. nee leen ministre bi moom dina xam comme président Macky Sall moom la jël confiance boobu jox ko ko muy kilifa gu mat kilifa nañ ko bàyyi mu xool dina xam moom xam na ni muy distribuer deux milliards cinq cent millions yooyu. ndekk loolu lañuy xaar mais man di ci wax sax amul benn solo Idrissa Diop di ci wax amul benn solo nañ bàyyi ministre ab Ablaye jóg mu wax ci. Mhm. defe naa loolu daal mooy suma njàngat man. di suma réponse daal ci loolu voilà. jeexaleeg statut de l'artiste balaa ñu lay bàyyi tey jii ñu adopté ko mu doon xeex gu yàgg ngir nag ñu organiser seen secteur bi ban jàngat nga ciy def tey. Euh, mais di rafetlu loolu parce que bu ñu demee ba am statut de l'artiste am am. loi bi ñu voté ko à l'Assemblée nationale et tout ça. Mm-hmm. mais des na des na aussi ñu adopté ko. c'est pas parce que dañ koy voté ko. il faut que ñu ñu ñu maanaam loi bi ñu am ko ba mu jeex tàkk ñu mën a nag jublu nag ci liggéeyu droit voisin yooyu nga xam ni ay milliards yi milliards yi milliards lay généré. Mm-hmm. parce que da ngay xam ne appareil téléphone bu dugg ci dëkk bi fii ñun dañ ci am dara ordinateur bu dugg ci dëkk bi fii dañ ci am dara matériel u son numérique xaw ma lan ak lan ak lan yooyu yëpp ñun dañ ci am dara kooku manne financière bu maanaam xaalis bu bari la quoi bu tappi loolu foog ñu def attention bàyyi di di di di di wax artistes yi li war a def gis nga dama lay rappeler dina man SACEM mm-hmm. mooy société des droits d'auteur et éditeur de musique bu France mm-hmm. mi ngi à Neuilly mu ngi en foofu ca ca ca France gis nga artistes ay artistes rek ko jiite du premier ki ci suuf ba ci kaw wala ki ci kaw ba ci suuf mhm. ñoom ñëpp c'est des premiers prix de conservatoire te ñoo jiite seen seen seen seen seen seen sasem ñoom ñoo ko jiite pourquoi artiste bu nul jiite li mu moom ñun ñoo moom suñu yëf kay nañ ñu bàyyi ñu jiite ko ñun c'est aussi simple que ça d'accord donc statut boobu bu ñëwee ñu ngi koy saluer di remercier encore le président Macky Sall di ko jox tout tout notre respect mhm. notre admiration ak notre fidélité wax dëgg yàlla ñu ngi ko ce gërëm bu baax mais nañu bàyyi euh, place yi ñu xëccoog yooyu les hommes qu'il faut à la place qu'il faut may rappeler nag li may wax ni wax naa ko sama kuréel wax naa ko ñëpp ah. xame nañ ko noonu uh-huh. man bëgguma benn poste waaw man Idrissa Diop maa loolu bëgguma benn poste xeexuma pour benn poste li may xeex mooy ñu dellu si culture aux acteurs et aux actrices culturelles du Sénégal loolu rek a tax may xeex. après nag danaa jël la ngeen ne leen gars yi téye leen mais man maa ngi suma affaire maa ngi suma yeneen i yeneen i affaire daal yoo xam ne soxla mu benn post wax dëgg yàlla ma leeral ko ba Sénégalais yi xamee ko noonu. Mhm. jàngate ko noonu et puis ko noonu quoi. voilà Idriss euh, Diop euh, merci beaucoup. jërëjëf ngeen nuyul ma ngeen nuyul ma Malick Diop moom muy seen seen seen seen patron d'accord sama xarit la ngeen nuyul ma ko bu baax. d'accord dina ko dégg incha allah ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf merci beaucoup. voilà nga nekk président jaaraama. ak am jaaraama merci beaucoup.